moom doonga yéegoon ñu koy yaakaar di seede ne yonent yàlla muhammad jaamam la woon bu mu yónni woon ci ñun ngiri mu xamal ñu naka la jaamoo suñu borom gannaaw loolu mbokk jullit suñu xutbab tey bii mi ngi jëm ci ngëneel yi nga xam ni diinil islaam woote na ca mu jëm ci la nga xam ne mooy ab liggéey mbokk la nga xam ne mooy jóg liggéey suna borom yalla subhanahu wa ta'ala mom moko santani mune xam len ni bis bu ngeen toge ba deg ña ngay noddal ca jakaja ca aljuma dem len wuyji ca bayyi njënd ma ak njaay ma suñu julle ba pare tasaro len ci kaw suuf ngeen sakku ngeen lu yalla mbokk loolu di ndigulu yalla tasaro len ci kaw suuf ñii jaar fii ñii jaar fii ku nekk am loo xam ne danga koy taxawee ci société bi borom bi subhanahu wa taala mu ne nag waaye bu leen fàtte di tudd seen boroom ngir ngeen doon ñoo xam ne ñu texe lañu looloo tax mbokk julli da ngay gëm ni yàlla dalaa indi ci kaw suuf ngir nga jaamu ko waaye ci biir jaamu googee da caa bokk dem liggéeyi donte ne lay priorité ci liggéey yooyu nag mooy la nga xam ne nii moom mooy farata yu màgg ci diine ci te mooy képp koo xam ne tey jii yaa ngi liggéey julli jot nga ba ñu julli yow xamoo lan moo tax yàlla indili ci kaw suuf déedéet mbokk jullit yàlla joxe ndigal ci ñu liggéey yàlla mu ne maa gàddu seen wërsëg ci li ngeen di liggéey waaye nag fu julli jotee dem leen ngeen julli ci loolu tax ba yow mi nekk Sénégal wala extérieur bépp liggéey boo xam ne danga nga dugg war ngaa gëstu ba mu wóor na la ni liggéey bii day du teqale ak julli liggéey bii day doo teye ba mën a julli ca waxtu wa waaye bépp liggéey boo xam ne seet nga ko ne lii day mënuloo koo boole julli ca waxtu wa nga la waay xamal ne sa wërsëg nekkul ci liggéey bi sa wërsëg ci loxo yàlla la nekk muñal ba xaar ba yàlla indi leneen te lépp loo bàyyi ca yàlla tax yàlla dana la mën a dana la mës a lu ko gën su ko defee mbokk julit la nga xam ne mooy sàkku ji wërsëg ba mën a fekk sa bopp mën a yor sa bopp ba mën a yor ña la yàlla dénk ci njaboot loolee ku nekk da cee war a góor góor lu bàyyi ci xel waaye gannaaw loolu nga mën a góorgóorlu ba la nga xamee ni nii mooy jaami yàlla yi te liggéey yow nga am foo leen féete jàppale leen ci loolu ca sarax ya ak may ya ak ndimbal yi ngi leen di dimbalee loolee mbokk suñu boroom jalla wa ala bunt yim ubbil jaamam yi bari na lool bokk ne ya ca gën a yomb te gën caa barkeel mooy lépp loo xam ne daa addu ci wàllu commerce lépp loo xam ne doomu aadama bi da koy jënd wëlbati di ko jaay loole bokk na ci la gën a tedd ci lu doomu aadama bi mën a ami wërsëg borom bi subhanahu wa mu ni bu leen lekkante seen alal ci neen xanaa lu dul loo xam ne dangeen ko koo jaarale ci commerce boo xam ne yéen ñaar ñépp yéenu ko gërëm amma ndax doomu aadama yi ba jël seen xaalis leb leen bañ leen a fay jëflante ca la nga xam ne mooy riba loolu lépp mbokk jullit bi xam ne wërsëgam ca loxo yàlla la nekk du dem mukk di dugg ci lu mel noonu loolu moo tax ba mbokk jullit ñu war a góorgóorlu ci suñu kemtaleel kàttan ba di fexe ba dugg ci lu ñuy mën a indil wërsëgu yàlla na doon loolee commerce la waaye na doon loola it micc muy jàngale di ko liggéeyee mbokk xamal ne mboolem yenin ci yàlla yàlla yu ni woon commencé yenin ci yàlla nuux ba ibrahim ba suñu yenin ci sallallahu alayhi wa sallam ñoom ñëpp boo leen toppoon kenn par kenn dañ naan le kii lii la nekkoon kii lii la nekkoon kii lii la nekkoon bokkoon na ko ñu yenin ci yàlla bi joxoon misaal mu ne xam leen ni bokk na lu gën teey lu doomu aadama ji lekk mooy loo xam ne moo ko liggéey ci loxoom lekk ko mu ne ci yàlla daawude day lam daan lekk lu daan jóge ci loxoom la kan mooy ci yàlla daawuda daa nekkoon yonent spécial yonent la woon ba pare buur la woon waaye teewul nguuram googu nga xam ne jamonoom amul benn buur bu ko diir mbagg ci kaw suuf teewul dafa daan dem di liggéey la nga xam ne mooy ay gilet mooy mbubb koŋ mbubb yoo xame ne nii boo ko solee ku la cor jaasi du mën a yegsi ci yow loolu la daan liggéeyee alayhi salaam daan ko lekk yonent bi alayhi salaam ne yonent yàlla daawuda ci ñaqam la daan dunde loolu nga xam ne tey ñu bari jàpp nañ ne bu ci nit nekkee ñu xeeb ko kii futteeku ca maçonnerie ba kee futteeku ci mécanicien ba kee futteeku ci électricité ba di daan dooleem di ñaq mi ngi noonu da ngay gis caricature yi di caricature ci seen théâtre yàgg yi aman duma séeg wàccu raxasu mbokk la wallahi ñëw ni ci ay xadis rasul sallallahu alayhi wa nee na man baata kaalan min amali yadihi baata maxfuuran la koo xam ne jamono ba muy tëdd yaram baa ngi metti ndax liggéey bu diis mu doon liggéey yàlla da koy baal mboole mi bakkaaram loolu nag mbokk jullit xam leen ni bu ñu koy wax góor ak jigéen yépp lañ ko yemele tey jii diine lislaam bi ñuy dund kan moo ko jëkk a taxawu kan moo ko jëkk a dooleel muy xadija bintu xooylit di bi njëlbeenu soxna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu nekkoon jigéen yàlla yee ko ci wàllu commerce commerce ba ndax da koo yemaloon biir Makka laa wallahi bal da doon def importation exportation di jël la nga xam ne mooy njëg di ko yóbbu ci Syrie ay 600 kilomètres di ko yóbbu ca Yaman ba loolu moo ko booleeg suñu yonent sallallahu alayhi wa sallam loolu tax ba nga la waay ni góor mën a liggéeyee noonu la jigéen mën a liggéeyee na doon liggéey boobee ci biti këram la te du ko yàqal liggéeyu këram donte ne li ci gën mooy liggéeyee nekk ci biir këram na doon lu mu fay commerce la wala ay ràbb yu mu fay rabb la wala lu mu fay def ci loo xame ni nii ab liggéey la alhamdulillah lu bari ci jigéeni Sénégal ay liggéeykat lañu malheureusement dañuy liggéey fukki at xëy yàq ko ci ñetti fan mariage wala ngénte ñu yàq lépp mbokk loolu nekkul woon jubluwaayu liggéey bi lislaam woote su ko defee ñu bàyyi xel yonenti bi salallahu alayhi wa sallam dadan moytolo doomu adama yi dem def seen liggéey mooy wër di ñaan nit ñi comme ni nga xamee ni tey am na ay nit ñoo xam ne seen spécial mooy loolu mooy man famille diw la ñu bokk dañuy dem di wër nit ñi di dajal rek di leen jox wala ay kast yoo xamee ni daw ne lañ ko suñuy maam même boo bokkee ca famille yooyu bul nangu loolu bul nangu mukk féetewoo dem ci doomu aadama yi ñu lay jox ànd ak jippi gañ lay jippi waaye bokkool ca ñu nga xam ne dañuy joxe yonent bi sal allahu alei wa sallam daana wax ne kenn ci yen gàddu buumam dem ca àll ba ut fa am mat ñëw jaay ko ngiri am lu mu dunde moo gën muy ñaan nit ñi na noon ñooñu dañ koo jox wala dañ koo xañ mu ne képp koo xam ne yaa ngi ñaan nit ñi jublu ci dajale alal boo ñëwee yowmal qiyaama sa kanam googee day ñuqati ko ba seen wecc loolee ku nekk wara góor góorlu bañ caa wa bàyyi ci xel kemtalal kattanam doomu aadama bi jéem a ñaan pour yor boppam xatta la nga xam ne mooy zakat bi ñu daan dajale yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nekk ni di ko séddale ñaari jeune ñëw taxaw yonent bi xool leen ne leen bu leen neexee ma jox leen de waye xam leen ne zakat bi ki nga xam ne am lu ko doy amu ci aq ki man liggey liggéey lu ko doy amu ci aq loolu ñu bayiko xel bu baax kep ku la jox zakat lu jàpp ne jox nañ mako rek dagan na ci man abadan xolal sa bop ndax yow bokku nga ci faqiri ndax yow miskin nga ndax yow yeyo nga lolu budul lolo jottili ko nga am ci tuyaaba jo tol na ko joxe waye wuro ko jël di ka mbokk suñu yonente alayhi wa sallam gis nañu ne dafa doon bëgg doomu aadama bi doon ko am njëriñ ci société bi xëy suba di liggéey looloo tax ba ah ki nga xam ne mooy abu umaama ñëw ne fekk ko ci jàkka ji waxtu woo xam ne du waxtu julli mën na am 10 heures ci suba mu ne ko abi umaama lu la tax nga toog ci jàkka ji heure bi mu ne ko yu mu yàlla yónni xanaa ay tiis yu ma jaaxal lool bor ak jaaxle yu ma jaaxal lool yonent bi alei salaam na ko kaay ma jàngal ak ñaan soo ko ñaanee yàlla dana fay say bor teggi say tiis te mooy nga ne yàlla maa ngi lay ñaan nga musal ma ci ak lot ci tële waaye yàlla na nga musal ci tayyel yàlla nag nga musal ci may tayyel yàlla yàlla na nga musal ci may ragal yàlla yàlla na nga musal ci may nay yàlla yàlla nag nga musal ci bor yu ma not yàlla yàlla na nga musal ci góor yu ma not abi umaama mu ne lii day ba ma ko ñaanee la yàlla tegg samay tiis fay samay bor te it bari na lu bari ci doomu aadama yi la nga xam ne moo leen xañ mooy tayal mooy bañ a jël effort bañ a oser essayer lu ci bari moom mooy la nga xam ne moo leen di sonal su ko defee mbokk jullit kii nga xam ne nii moom mooy ah, yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi sahaaba yi dajaloo jóge Màkka ñëw Madina ñooñu jóge màkk yàlla moo leen melal nee na ay fuqaraau al muhaajiruun ba ñuy jóge Makka fa la bàyyi seen tool fa la ñu bàyyi seen alal fa la ñu bàyyi seen lépp ñëw Madina amuñu dara waa ansaar teeru leen bokk na ci kenn ci ñoom Abdurahman ibnu Awf yonent bi alayhi salaam def ko mu nekk doomu ndey Saad ibnu Rabia al ansaari Saad daal di koy woo ne ko Abdurahman bokk naa ci ñi ëpp alal ci Madina samay tool a ngi nii sama commerce mi ngi nii damay séddoog yow samay tool yàlla may na ma ñaari soxna tànnal bu la ci neex ma fase ko ca ñu ñu nekk ay doomi ndey mu ne ko yàlla na yàlla barkeel say soxna yàlla na yàlla barkeel say alal marché Madina fan la nekk mu ne ko marché baa ngi fële Abdourahman na ko baax na amoon na ay graisse yu mu doon dajale amoon na quelque meew su xëyee dem jaay bu ëllëgee mu ñëw ba xëyee dem jaay bu ëllëgee mu ñëw ba Abdourahman bi muy dee ci millionnaires yi Madina yi ci la bokk loolee mbokk bés bu nañu gis ko fii ay xale yoo xam ne nii na doon ay bul foto lu ñëw wala ay leneen ñëw fii ab taabal bu ndaw boo xamee ni nii la ca nekk boo ko estimé matul sax vingt mille francs ñu nekk ci kur kur kur kur ba yàgg ñu ubbi bu ko gën a mag ba yàgg ñu ubbi contine bala ñu fee def dix ans quinze ans nekk grossiste aka bëri tey ay milliardaires yooyu joxoon ci Dakar fekk bu ñu la waxee seen commencement liggéey mooy lan tey ki gën a nekk le plus grand importateur ceeb ci Sénégal nee na tàng na la commencé bal nee na jaayu ndox la commencé bi mu ñëwee Ndakaaru jaay ndox yenu ndox di jaay la commencé gannaaw bu ubbi tàng na mujj di brasser des milliards nekk le plus grand importateur ceeb loolu la Abdourahmane jàngale woon depuis quatorze siècle la teel sa alal ana marché bi mooy kurkuri loolu it mu lay won mooy ndawal julit bul xeeb gis nga wërsëg wi la ci am solo mooy la barkeel te yàlla subhanahu wa taala bu xamee sa volonté yàlla moomu moo lay téete barkeelal la loolu tax mooy moytul rek di toog loo gis rek jàpp ca di avancé falilahi alhamdu gis nañ fa ay intellectuel yoo xam ne c'est des maîtrisards nekk ci marché yi xamoon naa ci benn waay boo xam ne nii ku ñu jege woon la daan ñëw fii ci sunu jàkka yi nekk ne maîtrisard ay at di dem ci marché di jaay jën ba bàyyi yàlla mujj ko ubbil bunt mu nekk tey fonctionnaire international kon bu leen xeeb góor-góorlu leen képp koo xamee ne sa réew dëgër na soo amee moyen dem bitim réew it loolee ca jaamu yàlla yi gën a màgg la suñu borom yàlla da gis ne lënkale ne jihaad fi sabilillah ak ña nga xam ne ñooy tukki di wuti wërsëg mu ne day xam naa ne am na ci yéen ñoo xam ne axaruuna yadribuuna fi l ard yabtaguuna min fadlillah wa axaruuna yuqaatiluuna fi sabilillah xam naa ne julit yi mun leen fanaane neefi la ndax am na ñoo xam ne ñu ngi jóg di dox ci kaw suuf am ñoo xam ne ñu ngi jihaad ku mel ne amar ibnul xataab daana wax ne man day su ma deewul fi sabilillah ci jihaad maa ngi bëgg dee ci alal ju ma doon faggu ji ca bitti Madina ndax la mu xamee ni ka nga xamee ni daa génn di faggu ji alal la nga xam ne moo koy teeru lan la ko yàlla di jàppe mooy da ko jàppe kuy jihaad yonent bi alayhi salaatu wasalaam daa toog ak sahaaba yi ci benn jihaad bu ñu nekkoon benn jeune romb leen mu ngi gàddu ay buumam di dox doxin bu dëgër gaa yi gis ci moom doole sahaaba yi ne ewaay ay eh, waay kii dooleem ji ak neexoon mu ñëw def ko fi sabilillah yonent bi alayhi salaam ne leen ah, su dee ne day daa bàyyi ay xale yu ndaw ca kër ga muy fàggu julum leen dundale mi ngi fi sabilillah su dee ne day daa bàyyi ay woy juróom yu màgget muy fàggu leen dundale mi ngi fi sabilillah même bu doon tane sax moom daa kenn da koo yorul mu jóg de fàggu ji ngiree mën a fekk boppam ba du sàcc du agressé du sonal kenn mi ngi fi sabilillah lii mbokk la islaam jox la nga xam ne moom mooy valeur u dem la nga xamante ni moom mooy liggéey yonent bi alayhi salaatu wasalaam daana ñaax ndawi jurit yi ñu bañ a xeeb mu ne leen xam leen ne yàlla musul yónni benn yonent lu dul sàmm na maa baasa allahu nabiyan illa wara algharam yonent bu yàlla musul yónni sàmm na ca mbokk société boo mën a dem bokk na ña fa gën a suufee mooy sàmmkat yi ñu ne ko même yow sàmm nga mu ne wallahi ba ma nekkee ndaw daana dajale juri waa màkk yi di leen sàmmal ñu may fay gis ngeen loolu mbokk kon ñu góor góorlu bàyyi ci xel bu baax dajale alal jooju nag mbokk daa am jubluwaay jubluwaay ba nekkul jël ay millions rënk ci sa biir kër jël ay milliards rënk ci banque bi jublu ko ay noos wala bàyyi ko fi la wallahi alal jooju daa war a am jubluwaay lan mooy jubluwaay wabtagi fi ma aataaka allahu daar al axira wala tansa nasibaka min addunia lépp loo xam ne yaa ko ñàq feggu ko xoolal lan moo ci ngërëmal yàlla nga def ko ci sahaaba yi waroon yonent bi salallahu alayhi wa sallam yàlla baaxe leen kii nga xam ne mooy aboubacarin saddiq alalam jépp da koo joxe woon fi sabilillah bal dañ daan dem ci jihaad mu indi loo xam ne yonent bi alayhi salaam bu ko laajee moo aboubacar loo bàyyi kër ga mu ne bàyyi fa yàlla yonent yàlla indi naa lépp gis ngeen loolu la daloon ci usman ibn lafan keroog gazwatu tabuk mu dem indi la nga xam muy junni dinaar ci jamono boo xam ne ku am ñaar fukki dinaar mooy nisaabu zakat dañuy jàpp am nga moom mu indi junni dinaar ak ñetti téeméeri giléem ak seeni charge lépp mu jël ko def ko fi sabilillah yonent bi alayhi salaam ne day kii nga xam ne mooy Ousmane day ma darra Ousmane ma amila baadal yowm Ousmane day jëfam ji mu def dara mënu koo tee dugg àjjana gannaaw tey et yàlla dénk alal alal jooju ngeen denc ko muy reposé ci banque yi ngeen nar a dee bàyyi ko fi xam leen ne waxuma Éthiopie wala Mozambique réew mi ngeen nekk ñaata village ñoo fi nekk amuñu ay ten yu ñu naan ñaata village ñoo fi nekk seeni jàkka yu sàkket la ñaata village ñoo fi nekk amuñu xatta case de santé ngal la way ñooñu gëstu leen leen ngeen alal joojee nga tëdd di nelaw mu wóor na leen ne am na fukki dëkk ci Sénégal sama ndox la ñuy naan am na ab ay ay dëkk ci Sénégal sama jàkk la ñuy jullee loole kenn xamul tuyaaba jooju nu mu toll ña leen jege ci mbokk yi ci fuqaraaw yi ngeen jàppale leen ci te xam ne loolu nga am sa alal loolu mooy la nga def sa alal su ko defee mbokk julit ñu góor góorlu itamit alal jooju buñ koy fagg ñu moytu ci lu haram ngalla way ndaw ñi ci alal yàkkamti wërsëg mu tax ngeen dem di ko wuti fu haram suñu yàlla borom bi lim ñu wax du dañ من يتق الله يجعله مخرج yaj'alhu مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ki ragal yàlla suñu borom nee na danaa ko may génn waaye wërsëgal ko fu ko foogewul woon bu jamono métti mukk ba nga ne damay dem di jaayi drogue damay dem di jaayi cigarette damay dem di jaayi sangara damay jël sama paaka dem di agressé abadan bul dugg ci riba bul dugg ci lenn muñal muñ gu rafet sabablu sabablu rafet wallahi suñu borom yàlla dana la wërsëgal gannaaw ba yéen xam leen ne wërsëg yéemul ci alal bokk na li sonal doomu aadama yi mooy diw am na ci alal lu ma amul fekk na yàlla wërsëgal na lu ko gën téeméer yoon xam leen ne wërsëg wi gën a màgg mooy yàlla may la ngëm gu sell wërsëg wi gën a màgg yàlla may la jukko yu rafet wërsëg wi gën a màgg mooy yàlla may la soxna su baax yonent bi alei nee na àdduna loo fi gis dañ koy xiiwloo oto yeeg lekk geeg tool yeeg lépp mu ne wa xayru mataiha almaratu saliha mu ne wañu ne la fi gën mooy nga am jëkkër ju baax bokk na li gën ci wërsëg mooy yàlla may li wér gi yaram wallahi am na des multimilliardaires wér gi la yàlla may nga xëy heure bu la neexee dox heure bu la neexee tëdd bu la neexee lekk bu la neexee naan buñ joxe woon seen milliards yépp ci am loolu moo leen gënal kon yow am nga lu ëpp la nga xam ne amuñu ko bokk naa la nga xam ne mooy wërsëg wi gën a màgg yàlla may la aafiya nga am jàmm yàlla jubale la ak sa njaboot yàlla jubale la ak sa dëkkandoo yàlla may la tawféex heure boo tëddee nelaw amoo benn problème lii mbokk dangay gis moo gën ay milliards loolu nag lan moo la koy may mooy nga jéem a sàmm am lu baax mbokk alal ju baax dalay yóbbu nga jëf lu baax jëf lu baax moo lay may jàmm may la aafiya amma alal ju xaraam ngay lekk lu xaraam day tax doo mën a jëf lu baax day tax jëf lu bon yomb la jëf ju bon joojee moo lay indil fitna àdduna avant la nga xam ne moom mooy fitna alaxira su ko defee ñu góorgóorlu sabablu sabablu bi gën a màgg ci wut alal bokk na ci def ay effort bokk na ci wikku ci yàlla gëm na du may wërsëgal sama bopp yàlla moom may wërsëgal bokk na ci jokk say mbokk yonent bi alayhi salaam nee na jokk ay mbokk day yokk alal bokk na ci di booloo nee na amul benn njaboot goo xam ne booloo nañu jàppaloo nañu nee na même bu dee nañoo nekk sax ay kaccoor sax suñu borom yàlla ci àdduna moom dana leen sàmm dooleel leen loolu it ñu bàyyi ci xel bu baax rawatina la jeunesse ku ci na jigéen génn nga sa kër bàyyi dem luye ji appartement ay fitna yu dul jeex rek la leen di jural lu ngeen gën a mën a booloo lu ngeen gën a mën a jàppaloo loolu moo leen gën a may sécurité moo leen gën a may aafiya moo gën a barkeel la nga xam ne mooy seen alal demal ci dëkk àll yépp kër goo gis mu fande rek mooy benn jabar ak ñaari doom waaye doo dem mukk ak kër fekk fa ñaar fukki ponkal yi fa yeewoo nga gis ñu ne añuñu wala réeruñu loolee kon ñu bàyyi ci xel bu baax gannaaw loolu mbokk julit fu ñu toll nag di ñaan yàlla subhanahu wa taala yàlla tànnal ñu wërsëg wu dagance ca tey waaye fu ñu toll di baril jéggulu yàlla amul kenn koo xam ne lënkoo na ak di toroxlu di jéggulu yàlla fu mu mën a toll lu dul yàlla dana ko tànnal wërsëg wu dagan ca tey yal na yàlla wërsëgal ñu wërsëg wu dagan ca tey yal na yàlla dox suñu digganteeg lépp lu xaraam lépp lu ñu wërsëgal yal na ñu xéetal ñu delloo ko ci ngërëmam mu nekk ci ñun teranga àdduna ak teranga alaxira yal na ñu yàlla tànn la gën ci wërsëg ci àdduna yal na ñu yàlla tànn la gën a kawe ay daraja ca ca aljanna wa sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati ma yasifun wa salamun ala al mursalin والحمد لله رب العالمين